dal leen ak jàmm mbokku internet ci olof njaay nee na siiw du jàmmi boroom waaye tey jii am na ñu bari ñoo xamante ne jàpp nañ ne seen jàmm ji siiw la nekk bokk na ci ñi buggul siiw benn yoon kii lee di taw bu jigéen bu Youssou Ndour di wuyo ci turu Coro Ndour daanaka bari na sax ñu umpale ki mu doon donte baayam bokk na ci ñi gën a siiw ci réew mi ndax xam ngeen Coro Ndour taw Star Planet bii di Youssou Ndour xëy na déedéet ndax lu bari ci réew mi xamuñu ko te bokk na lool ci li ko waral muy ne moom moomu lee nit ku discret la ku noppi la atum 2005 ba fii mu toll ni mi ngi sëy ak benn tubaab buy wuyoo ci turu Rémi bale nekk ca France moom jëkkëru Thioro Ndour bi ab responsable commercial la ca IDF chez Marius nekk ab société bu mag buy liggéey ci wàllu tabax ak dal mba dëru ciment ak béton moom Youssou Ndour néew na lool lu ñuy dégg mu yëkkati ay kàddu jëmale ci taawam bii di Thioro xëy na bokk na ci li tax ñu bari xamuñu ko ci jamono ay xibaar jotoon na fi tasaaroo ngi di wax ne kilée di Thioro Ndour ak Rémi Balé seen sëy dafa tas waaye loolu yépp amul ñoom ñaar ñi lee tey la ñu gën a juboo tey la ñu gën a booloo ba tey Coro Nduur moomu xaritu benn bakkanu kile di bébé baas la maanaam soxna woykat bi mag bii di Pape Diouf moom Coro nag ay jege ñaaleem yépp jot nañu wax ne nit ku discret la ku noppi la koo xamante ne ay mbiram yépp ci sutura la koy def ndax siiw ak fës daanaka waxu ci dara ba tey jege ñaaleem yi ñu ngi wax ne nit ku nangoo liggéey la te mën a toppatoo jëkkëram moom sax daanaka ab styliste di liggéey ci wàllum mode di wàllu boppam liggéey boobule mu ngi ci ànd ak ay tàntam wala sax ma wax ne ay yaayam jërë ngeen jëf